muy euh, parti bi ñu tas di Pastef ñu naan dafa am ay financement occulte maanaam ay koppar yoo xam ne fi ñu cosaanoo leerul ñu dugal ko ci ba am na ñenn ñu ngi ciy sàkku ñu euh, def ci ay enquête ñi nga xamante ne moo di euh, ñenn ci ay responsable yu ex parti boobu tamit dégg nañ ci kenn mu ciy indi ay tontu. waaw loolu moom bu dee am na jarul sax ñu naan nan ubbi enquête day loo xamante ne lu jaadu la ngir mbir mi daal di leer parce que bu dee dañ leen nekk ci réew moo xamante ni institution yi mi ngi dox. ñu ne dafa am ay financement occulte yoo xamante ni dafa jóge bitim réew dugg ci biir parce que gis nga coowal Sonko li bi mu juddoo am na benn journal bu nekk bitim réew sa boo xamante ne bindoon na ci ba ciy tudd ay frères musulmans tudd ci Qatar xëy na li ci gën a yees ci wàllu wax mooy sorte bi nga xamante ni député bi di Matar job defoon na ko à l' assemblée nationale bi ñu voté budget yi semaine ba la passé il est allé plus loin di ne Ousmane Sonko dem na ba bind ab bataaxal Macky Sall sax ngir sàkku ci moom mu aar ko aar njabootam ndax ña ko jox koppar yi dañ koy tëkku. et je pense que loolu bu dee am na Macky Sall yor yor këy tëkk ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko jarul coow lu bari. justice baa ngi moom mi nga xamante ne mooy président di incarné lépp je pense que ñu leeral ko moom moo gën jarul polémique ak werante bi et cetera parce que loolu bu amee du garaaw la Sénégal nag comme ni ko waxee au delà de cette affaire wala coow li liñ fiy dégg mbiram xaalis di jëm ci ay parti politique wala ci ay way politique bëri na gisoon nga fi fond Taïwan ay jamono Macky Sall mi lañ ci tuddoon donc euh, li nga xamante nag mooy réew mi dafa am loi bu fi amoon boo xamante ne depuis 1981 la ba Abdou Diouf naan jàkk jàng noonu ku mën mm. parti politique yi nga xamante dafa dem ba ci constitution bu Sénégal ñu consacré ko bind ko ci muy article 3 beeg 4 bi. dem nañ sax ba ni parti politique bu fekkente ni yow da jël. koppar wala ndimbal loo xam te bitim réew la jóge mën nañoo tas parti politique. Hmm. loolu mi ngi ci loi bi loi bi en 89 dañ ko modifié waat. donc mu nga xamante kon mi ngi fi depuis des trentaines d'années fii ci Sénégal mu nekk fi ñu daanaka jëggaane ko ca France parce que France moom réglé nañ seen problème gis nga affaire big malion beeg mm. Sarkozy mi nga xamante ni dañoo jàpp ni ci wàllu financement tamit dem na ba weesu sax lañ ko nattoon France moom mm. c'est bien encadré ba nga xamante ni xaalis bi buñ koy dugal ci campagne électorale wala di ko jox parti politique yi am na foo xamante ni boo ko dépassé parce que ñoom 1988 lan réglé loolu parce qu'il s'était rendu eh, nit mën naa jóge bitim réew daal di infiltrer ay parti politique comme euh, nit ñi dañuy miser ba réew mi sax da gis ñoo xam ay homme d'affaires lan mhm. di di miser ci ay candidats yaakaar ni candidat boobu bis bu demee ba gagné daal di am lu mu la delloo mhm. donc ba tax na kon il faut ñu daal di koy encadrer malheureusement depuis très longtemps ñi ngi fàttali pour ñu rappeler loi bi bu jaree sax ñu yeesalaat ko ba nga xamante loi sur le financement déjà des partis politique yi xaalis des fois di leen ko subventionné à condition que ñuy gérer yi nga xamante ni moom leen di xaar ci ñoom ci wàllu formation ak yooyu et malheureusement fii c' est pas le cas amul benn parti boo xamante ni di nga gis at mi ñu ngi ci fin d' nga def déjà sa état financier dem déposer ministère de l' li nga jëfandikoo ci xaalis xaalis bi nga jëfandikoo fan la jóge on a laissé faire moom moo waral nag li nga xamante ni moom mooy polémique yi ñu gis ces dernières années jëm ci dem ci loolu te loolu c'est pas bien pour un réew moo un pays moo xamante ne dañoo bëgg nga nekk démocratie loi bi nag du rek ci wàllu financement dem na ba ci sax parti yi dañoo war maanaam ñoom it ñu jox leen antenne ca télévision bu mu RTS. Hmm. c'est pas le cas te loolu aussi la même loi consacré na ko fii li ñu fi gis mooy c'est le au pouvoir boo xamante hmm. mooy aaki ah, moo antenne bi guddeeg bëccëg surtout bi fi Macky Sall xam ne ni gis nga ko temps yi ay levée de fonds amoon na fi daaw sax concernant parti mm-hmm. ba Antoine Diome génn ci mu également benn communiqué di rappeler na dafa am na demee parce que mm-hmm. demoon ba ci Kopar Express di ko jaate te loolu aussi c'est vrai que ab parti moom ngay defee même sa levée de fonds pour ñu encadrer ko ba nga xamante mm-hmm. koppar yi war a koo dépasser parce que boo ko dépassé moo waral na gis nga ko ñi am doole ñi ñoo nar a ñi amul doole même ba ci campagne électorale bi gars yi ngi ni dem déposer 30 millions fois on ne la respecte pas et bonjour les dégâts. Euh, Alaaji Malick est-ce que euh, parti politique yi am na ñu intérêt doxal wàllum transparence ci loolu le et puis ci ñuy euh, dégg ni lan mooy doxalin bi wala tëralin bi ñu war a amal ngir yëf yi daal di leer mu bañ a lëndëm ci bopp kenn. waaw dafa dafa war a leer te li nga xam ni moom mooy débat bi muy le financement des partis politiques ça ne date pas d'aujourd'hui lu yàgg la ci fàttali rek en 1984 maître Abdoulaye Wade moom moo njëkk a lu nu mel au président de l' assemblée nationale pour que suñu parlement bi voté une loi relative au financement des partis politiques parce que dañu dafa remarqué woon ni dafa am maanaam euh, waroo ci ñi nga xam ni ñoom ñoo am doole muy parti bi nekk au pouvoir ak ñi nekk ci opposition bi ci la waxoon sax ni dañu war a régler définitivement le problème Euh, du statut de l'opposition et le problème du financement des partis politiques parce que dañu njortoon ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi jamono jooju dañuy jël alali nguur gi di ko campagne dañuy jël euh, moyen nguur gi di ko campagne te la question reste toujours d'actualité dañuy jël sax oto nguur gi di ko campagne donc lu mel noonu moom la maître Wade euh, posé woon ba Abdou Diouf était même favorable ci jamono jooju ci la nommé woon un médiateur le professeur Mbodj pour ñu régler définitivement ce problème mais le problème reste entier parce que ba léegi dafa am waroo ci diggante parti politique yi ñi am doole dañuy lekk ñi amul doole c'est pratiquement une question de jungle les plus forts bouffent les plus faibles maintenant le financement de partis politique dafa nekk débat bu nga xamante nii ci ce qui concerne par exemple PASTEF ça ne date pas également d'aujourd'hui en 2019 on se rappelle que ci campagne yu PASTEF bi dañu dem ba benn moment ñu ne seen oto yi mënatuñu dem parce que amuñu essence ndax amatuñu xaalis ci loolu janvier la ñu levé la ñu waxoon ne nañu def li ñu tuddee campagne de financement muy levée de fonds boobu qui avait généré en 24 heures cent vingt cinq millions cent vingt cinq millions le patriote yi dajale ci lu gaaw mais loolu ça pratiquement avait affolé l'état du Sénégal ba le ministre de l'intérieur ci la génnoon wax ne bu ñu moytu dinañ tas parti Pastef ndax li ñu def noonu euh, jaaduwul teguwul ci yoon ba euh, ki nga xam ne moo di El Malick Ndiaye ci la ko tontu woon ci jamono yooyu ni ko attention ñun Pastef nii la ñu mus a financer suñu parti politique les patriotes ñoom ñooy cotiser pour ñu am ay fonds donc ñun noonu la ñu mus a doxee xëy na bii kay daa dox te yeneen yu doxul woon moo tax ngeen affolé mais li nga xam ni moom la ñu soulever nii euh, ci euh, ci jamono yi muy affaire financement occulte yu yu Pastef ñu fàttali ni Canard enchaîné euh, di journal bu nekkoon France moom moo ci bindoon et ça fait très longtemps ça fait six mois pourquoi attendre la veille des élections maintenant pour soulever cette question il faut que nit ñi aussi di xaw xaw a bàyyi xel ci ne on en période préélectorale et en période préélectorale euh, ñu ngi fàttali ni c'est pas la première fois qu'un opposant bu am doole ñu jiiñ ko lu mel ni parce que les fonds taïwanais yi ñu jiiñoon Idrissa sekk mi ngi ci woon donc tout est fait ak à dessein tout est calculé dans cette période la lu ñu mun a def pour gën a nasaxal opposant dañu koy def parce que période bi période la bu nga xamante ni période bu sensible la donc il faut qu'on fasse très attention sur ça mais normal moo di ni tey bu fekkee ni question bu grave nii soulever nañ ko ci réew mi que le procureur s'autosaisisse pour régler pour ñu éclairer ko parce que bu dee am na lu grave la mm-hmm. bu dee amul ñi ko wax Ousmane Sonko war na leen topp ci mm-hmm. yoon. Um, mm-hmm. donc lu ñu war a leeral la en tout état de cause. Mm-hmm. alors euh, sëñ Cheikh ndax euh, yëf yi dégg nañ El Malick Ndiaye indi na ci ay kàddu est-ce que loolu dalal na xel est-ce que c'est pas euh, l'occasion quand même ñu leeral loolu une bonne fois pour toutes ndax ñu ngi wax fonds taïwanais yi loolu ki ñu ci doon tudd moom mi ngi koy topp boobu ba léegi des années après est-ce que jarul ñu leeral nga xamante ne au moins bu ëllëgee. Euh, dootuñu amati lu ñuy teg seen der. Ah, euh, justement bon Malick li mu wax fi mu jeexale je pense que loolu mooy li war euh, ubbi benn commission d'enquête leeral ko mais pour en revenir ci tontu El Hadj boobu je pense que c'est c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que ni mu tonto textuellement il a dit qu'il <coughs> soit lu mënti doon ak lu luñ ko mën di kii nous on l'aime bon loolu mën nañ comprendre que euh, bëgg-bëggam ak euh, cofeel bi ñu am moom la bëgg mettre en valeur quoi mais euh, nit nit rek la un homme politique waruñu ko pardonner yenn erreurs yi su fekkee ni def na ko ak loo ko bëgg bëgg bëgg su fekkee ni def na genre erreur yu mel noonu mënoo ko ko pardonner parce que li ñuy xeex. ñi nga xamee ne ñoo koy def te ñu yaakaar ko ci moom moom moo tax ñu ñu ñu ñu ñu ñi ñi am ci moom espoir boobu pour bu mu dugg ci euh, tànk yooyu le mais pour en revenir euh, à cette histoire de financement bon je parle même pas de financement des partis politiques mais surtout ci contexte bi ñu nekk veille élection présidentielle. Mm-hmm. campagne électorale Chérif mi ngi koy addu sànq euh, on a plus de deux cent candidats yoo xamee ni. ñoom ñëpp décaissé nañ trente millions xam nga ñaata trente. trente trente millions ñëw caution. xaalis boo xamee ni kenn xamul fu mu jógee am na déjà tey jii ñii recevoir candidat boo xamee ni kenn xamu ko waaw peut-être que moo ëpp xaalis sax ñi <laughs> ñuy wax ni yëpp mais tout ça <laughs> on ne sait pas on ne sait pas mm. xamuñu euh, ñan la te contexte bi dafa xaw a doy doy waar parce que le Sénégal euh, fii ak quelques mois. Hmm. dafay exploiter. pétrole ak gaz hmm. te nekk na ay ressources yoo xamee ni adduna bi ñëpp ko teg ñëpp ko teg bët ñëpp ko teg bët hmm. te ñu bari ñu ngi buuxante pour teg ci seen loxo ñii ñi ngi yaakaar ni que Euh, peut-être nguur bu bees su fi ñëwee li ñu fi négocier woon mën nañu ko renégocier waat. Hmm. yooyu yëpp mën na tax ay lobby di jóge euh, à l'étranger di jéem a dugal seen xaalis. di hmm. jéem a jàppale nit euh, pour mu falu pour après ñu am. retour sur retour sur investissement. Hmm. mais fu may jeexalee tamit mooy Malick aussi wax na ko sànq muy ci campagne électorale bi aussi les moyens de l'État loolu aussi foog ñu xam ko. le candidat de de la majorité ou bien le candidat sortant warul. utiliser mm. benn yoon les moyens de l'État mm. même si am na ku ko fi defoon am na ñu ko fi defoon ñu dóor leen parce que Abdoulaye Wade je pense que élection bi mu gagné mooy élection bu mu gën ñàkk ba mu jëlee réew mi mooy élection bu mu gën a ñàkk dépensé xaalis ak mm. marche bleue bi mu doon def mais de toute façon les moyens euh, dispendieux euh, de l'État moom loolu warul bokk ci campagne électorale di néewal doole adversaire mm-hmm. waaw euh, soxna Naata loolu dafay Euh, indiwaat euh, la problématique euh, du financement des partis politique ak nan la ñu mën a saytoo koppar bi nga xamante ne moom lañu dugal ci yenn activités yi alors li député Matar Diop évoqué c'est un problème sérieux boo xamante ne procureur da ko war a jël au sérieux parce que yenn kàddu yi ku ko yëkkati war nañ la déglu ba xam yan argument la am fan nga ko teg fan nga ko teg parce que aussi voilà assemblée nationale assemblée nationale la ko waxee. teg ko ci ndodd koo xamante ne déjà euh, mu ngi ci ay jafe-jafe ak yoon nga indi ci li demel donc loolu war na mën a tax tey procureur li mu gën a gaawee mu saytu affaire boobu enquête bu sérieuse bu ko defee ñu xam li mu wax fan la ko teg bu dee nag lu am la. ñu def li ci war bu amul tamit ki nga xamante ne mooy yëkkati kàddu yi. yoon am na mu def parce que lii ñu ngi fàttali ko soxna naata en 2001. bokk na ci problème boo xamante ne yëngaloon na Espagne mm. avec le chef du gouvernement euh, Mariano Rajoy à l'époque mm. bu fekkoon ne ne euh, opposition bi amoon nañ taxawaay bi ñu amoon dafay dafay am ay jafe-jafe mm. donc euh, moyen occulte force occulte donc euh, repose la problématique euh, du financement des partis politiques kan moo mën a gérer tey mm-hmm. euh, activité parti politique avec ses propres fonds mm-hmm. état xëy na mën na ko parce que Euh, am na ressources yi mais tey même buñ ko encadré aussi mën nañ ne ce qui compose euh, l'attelage gouvernemental mhm. am nañ koppar boo xam ne xëy na bu ko dajalee mën nañ may parti boobu mu doxal mais mhm. benn parti politique boo xamante ne mu ngi fii Sénégal war a sukkandiku ci ay cotisations bu naree doxal ay activité gis nañ ko. Mm-hmm. voilà subvention boobu. mais dañuy gis à chaque fois élection bu commencé campagne bi. da ngay dégg yenn mm-hmm. candidats yi dañuy dem. Mm-hmm. seen biir dañuy am problème. pour continuer li nga xamante ne seen mooy seen campagne donc il faut ñu gën a saytu problème bi. bu ko defee ñu gën ko encadrer. muy état muy opposition bu ko defee ñu yemale ñëpp. Euh, ñu départandoo bu ko defee ku ëpp chance wala ku sénégalais yi wóolu. mais suñ subventionné est mm. nag mooy parti politique dafa war a respecter critères yi critères yi bokk na comme ni ñu ko waxee muy def déjà état financier di mën aussi di former parti politique li ko war mooy moo former Malick wax na lu am solo mooy le professeur El Hadj Mbodj. ni wax Abdou Abdou moo ko santoon. même forum civil bu vous rappelez bien daanaka wax ñu appliquer rapport bi nga xamante ni defoon na ko ci financement parti politique yi malheureusement Ablaye Wade moo appliquer hmm. rapport bi nga xamante ni le professeur El Hadj Mbodj du constitutionnel liste bu mag fële ci université Anta Diop bu Dakar defoon na ko ci hmm. Euh, hmm. financement des partis politiques ngir ñu gën ko mën a réglementer merci beaucoup euh, Chérif alors bu leen ci kanam tuuti euh, dinañ dem ci seen rubrique un jour au Sénégal un jour dans le monde en attendant ñu tënk xibaar yi léegi ak Cheikh Tidiane Diaw